monde de l'élevage di leen C'est quoi bergerie de la renaissance waaw ñun ñu ngi dëkk Wakam c'était El Hadj ici. Sy foofu leen dëkk bi mooy sunu quatrième participation bi mooy euh, non cinquième participation parce que dans l'ensemble dem nañ trois secteurs à ñaari kiiwu Adam quoi waaw waaw parce que euh, ñun en 2016 c'est une première sortie mille 2018 mooy suñ première ki wu Adam 2020 le le le tenant du tir turbine kii suñ suñ bergerie la juddoo ñu ñoo ko juddul muy Aldibo quoi papam lañ yoroon Renaissance mooy euh, le naisseur actuellement nii nii Renaissance après ñu teg si kii quoi doomu diaspora yaayam nekk doomu Sukran ak benn doomu Assane 2 lan croisé woon quoi teg ko si diaspora mu jur grain d'or def nañ amélioration amélioration bi mooy que ne andi nañ renaissance liggéey après teg fi champion Adam mooy champion le tenant du titre après loolu mooy suñu base ñu jël kii teg ko si mais vraiment gis nañ amélioration d'après après sujet yi mu def quoi. waaw organisation bi moom euh, wax fa dëgg yàlla moom jaar na yoon quoi jaar na parce que surtout côté sanitaire ñun bu doon ñëw foire moom dañuy am problème mu di génn fii di dem environnement bi mais ren moom kenn amul problème boobu noonu boo buggee sangu di nga sangu boo buggee dem toilette xam nga nice quoi foofu moom waaw. waaw parce que affaire yi moom ñu ñëpp benn affaire continuité la continuité la dañuy ñaan yàlla aussi tamit xama nga tànk yin kii déwén ñu gën a ñu gën yàlla may ñu ñu tal fekke affaire yi gën a kii parce que Adam c'est une famille quoi ah, dinañ fi grain d'or PSG ki doomu renaissance la yaay doomu teranga kii mooy Racky Pouy doomu renaissance la yaay ji doomu brise de mer kii doomu grain door la yaay ji nekk sët si renaissance nekk doomu solution setu jogay yii moom ay doomu grain d'or lan aussi ah ñu ñu ngi doo joxe rendez-vous parce que ñun souvent si prochaine kii ah 2025 ah avant les ab sectorielles 2024 incha allah. waaw di gërëm ñëpp di leen gërëm surtout yéen yéen ñi xamante ne tey grace à vous élevage su mu toll yéen am ngeen si ay jéego di leen ñaanal li ngeen sumba tamit xal ngeen ko eggali si jàmm ama ay yeneen affaire judd si quoi jërëjëf.